fausse nouvelle rek ñi ko dégg juriste yi ko dégg dana ah loolu kat mérité na garde à fekk nag nouvelle bi demewul noonu keneen waxoon na ko wala boog nouvelle bi moom mënul yëngal dara ci dëkk bi moom moom xoolal ñaari mbir sax werante wuñ ci ñun jàpp la ne ràpp ci kaso bi commencé euh, garde à vue mandat dépôt aller retour nga dem juge bi ne trois mois avec sursis nga dem fekk moom ñoom yow yàgg nga fa perte nga fa sa temps loolu lañ ñu war de xoolaat bu baax a baax di dem taxi yi parce que affaire yi taxi yi day mel ne des fois day bula suba mu xonq ginnaaw suba doo ma comprendre affaire bi lu mu doon yaanaa maar nag dañoo yeex a wax mm. dañoo yeex a wax de mm. wala dañ leen a séddu non non euh, est-ce que est que est-ce que mën nga ko bañ waaw laajte mais tey ah, mais vu vu la situation on a suivi quand même la conférence de presse parce que gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog foofu je pense que ne ne euh, question ah, pour certains ñi que yëg nga ne Mamadou Lamine Diante nommé nañ ko ah, temps yee commencé woon naa yëngal euh, bien sûr nommé nañ ko léegi bu mu la jaaxal nga xëy waaye yaa naa maar ne tekk fii lu ne fekk nañu Fatima fii réew mi ñun hmm. juddu wuñ man judduuma le vingt cinq février deux mille vingt cinq vingt 90 laa judd donte samay at bariwut waaye nag am na lu ma fàttaliku. xale bu ndaw ñëw yaanaa maar fekk na ma fi. ñëw yeneen gars yi fi la ma fekk te heure bii daaw yu bari dama fee fekk nag may gis ñooñu ñu ngi positionné wu ndànk-ndànk eh, seen confrère ma man jong nommé nañ ko grand journaliste ndaanaan la. cër hmm? nañ ko. mbir mi moom sa waay affaire yi moom yàlla fal naa ñu jomaay xamul pour amnistie ñeneen ñi feeñal ñi ci des nguurug ñoom jomaay. ñu bari nag amnistie nañ leen xam nga lu tax lañ leen doon waxal yépp histoire war na ne du dëgg ñañ doon wax ay sàcc la yépp histoire war na ne duñu ay sàcc te nguuru jomaay bu ñëwutoon loolu du am ñañ doon nome yépp wane wan nañ ne ñii ñoo newoon ci projet bi ndax wax nañ ku nekkul ci projet bi kenn du la tabb te gis nga ñi nome déggu ci benn coow waaye ña doon dem RTS dégg nga coow la ca dar parce que dañ ne bokkuñ ci projet bi enseignant bee ñu dàq barki démb ndax bokkul ci projet bi kon bu mu la jaaxal génn nañ nag tey nangul naa leen jox naa leen bénéfice di dut maa ngi yor samay bët nag teg ko ci ñoom coow li daa war a dem damay bañ mel ne affaire Oumy nduur fii yu ne xew na fi. bàyyil ah damay fàttali ko rek. bàyyil Oumy Ndour. Oumy yoroon combat woyofal bi. mu ngi ciy def ba tey. déedéet ñu koy bana combat bi signature yi jàmbur yi fan yëpp maa ngi ko koy laaj pour mu delloo sil ma ko man ma porté combat bi. yaa naa maar nag bu mu la jaaxal ñu xëy ñu ne tekk waaye ñaanalu ma leen tey moom ni ma leen gisee rafetlu naa ko yéex nañoo wax nag waaye nañu nañu gën a taxaw gën a jatu na comme soccet kon nommé nañ seen benn copain nag euh, yooyu ba pare garaawut kilifa ma ca visa yi waaye ñoom it nañ gën a góor góorgóorlu ñoom ñi fi des kus néew nañ gën a góorgóorlu bu baax takku xam ne réew mi heure bi dafa jot ku waxul complice nga nag képp ko xam ne waxoo complice nga parce que Sonko toog na fee mu ne wax naa wax naa leen keroog grand théâtre déggu leen am nañu ñam lool baat bi moo ko wax nee na am nañu ñam ay nit ñu fay la naan la bindal ci diw bi fay bindal ci diw fii moom bu fekkee fay di lu moo am ñoom ñoo ko fi doon def te naa la jox benn révélation ci kaw Jéegi Jóob source ah journal source A am xam nga ko directeur de bi. bay tudd bay bay bay bay bay tudd tudd jàmbur yi bay leen rek. source A borom daf maa engagé parce que sama waay du ma ko diffamé. très bien borom source A. Mhm. direction bi Jéegi Jóob nekkoon kii directeur de publication source A bi direction boobu dañ ko woowoon ne ko fii dafa am détournement bu fi am pour mu def ko à la moom mu jël téléphone am woo jéegi bi mu ko joowee jéegi expliqué ko moom bindul bindul bindul article bindul à une boobu mais moom nee na ma bi ma xëyee ama grande surprise gis naa ko ko bind. très bien. nga xam ne boo dama tax man la bu dee fay bi bindulu. Mm. xam nañ ñan ñoo koy def dof dof loo fi ne. très bien. tey source a bu nekkoon beneen journaux mën na koo dóor à la une lu ci yoonam pare. léegi bu ñu ko porté plainte ci diffamation lan après dañ koy couvrir léegi nag après yow nga génn naan fay di bindulu ndekete yoo yow xam nga ñu koy def tay tay lu moo la neex kon nañu bàyyi nit ñi ñu nekk ci jàmm ak salaam te bàyyi xoqotalaate bi tiitalaate bi yenn alaa ini ñu ngi koy gis nii ñu koy bind nii xam nga boo amutoon ndëgër laay di nga ci am sax looy ragal pour ñu porter la plainte mais da ngay gis ko accusé de détournement fang nii sans sans sax utiliser dara ah yow mu nekk sa faveur yow waxoo ñooñu dara alors que benn la tribune bu xëyee bind wala benn benn le quotidien xëy bind nga ne non kii sama noonu la quoi li muy bind dafa may kii wala benn lobs pour lan nañu bàyyi caaxaan yi te bàyyi xoqat laata bi yaanamaar gën a taxaw nag gën a taxaw nag maa ngi teg samay bët di xool man réew mi man heure bi man lañ observé loo man man lañ ko kan moo la jox boobu kan moo la jox boobu man ay. askan bi ñoo <laughs> la jox mu ngi lay suivre yow rek lay yow lay yàkkam. heure bi moom askan man nañ ma képp koo gis. Ah. tànk yam doon dox démb doxu ko tey. wan ñu ko. kon yow ci lanceur d'alerte yi nga bokk. wala ci ñuy yoole ma est-ce que du yow ci ñuy yoole nga bokk man moom ci réew mi. Hmm. jàppale naa jomaay na ci cadre Xaadim Bamba Diagne li mu wax ma yi maa ko dimbalee jomaay Euh. maa ko ko jox gratuite ci yoole bi mais amul problème <laughs> maa ko ko jox gratuite da ko réglé nag parce que mënul nommer ay nit ñuy ñuy xas ay magistrat ci biir régime moom loolu war ko mën a nangu waaye nag ku mën a bàyyi kaa Omar Diagne yi bii du la jaaxal très bien euh, Sali Joseph ba tey euh, ci li nga xamante ne moom moo di mouvement Y'en a marre tey euh, génn nañ gisoon nañ nag ci présidium bi Aliou Sané Thiat mais également Fou Malade derrière ñu toog wax li nga xamante ne peut-être ñu ngi koy ñaawlu ci liberté d'expression ak li nga xamante ne moo di arrestation yu bari yi ñu jot a def ci biir semaine bi te warul rekk loo xamante ne lu ñu war a mën a nangu la ci biir régime bi oui euh, def nañu lu baax loolu moom moo war euh, dans une république normale dafa am ñoo xamante ni si ñoom la ñuy wax euh, euh, nu mu tuddati la société civile xam nga nous avons une société composée de trois différentes sociétés la société globale dañoo am société militaire am société politique am société civile le malheur le malheur est que <laughs> il y a une société civile qui finit toujours au palais moo tax doo xam ndax ci société civile lañ nekk wala société politique lañ nekk te ñaa ñetti société yi benn amu ci yoon bu war a lëkkale lëkkaloog morom mi société civile dafa war a taxaw imposé wu en tant que société civile farul ci parti politique bokkul ci société militaire société militaire beeg les paramilitaires ñoom ñu taxaw incarner seen rôle ba mu mat sëkk te jàpp naa ne sax ñoom ñu ngi ci la société politique taxaw nag incarner ñoom it seen rôle bu baax a baax a baax a baax a baax teyit loolu mooy indi équilibre bu mën a tax démocratie sax ndax tey jii le régime euh, nu mu tuddati la société politique mhm. taxawaay bi nga xamante ni daf koy am dans le cadre de gérer les affaires de la cité mhm. la participation bi nga xamante ni si mooy indi balance d'équilibre bi mooy l'existence de la société civile mooy nekk gi société civile bi di nekk loolu nag liy garantir dund gi nga xamante ni si dañ koy mën a dund ci jàmm loolu société militaire bi moom moo ko yor kon nag amunu benn yoon boo xamante ni si mën ngaa jàll ca bee jaar ca ba ca des dañuy jékki-jékki rek gis une société civile wala des gens yoo xamante ni dañuy taxaw ni ci société civile lan bokk. Mm-hmm. wala di taxaw ni ils sont des personnes yoo xamante ni si euh, xool nañu la situation politique. Mm-hmm. c'est normal. Mm-hmm. observer ko am penchant am fu ñu far bu ñu taxawee daal nit ñi faruñu di def influence et c'est malhonnête loolu la ñuy wax malhonnêteté intellectuelle. mooy nit koo xamante ni sii da ngay taxaw jàkkaarloog askan bi ni leen faruma fenn ba pare daa di taxaw di wax loo xamante ni da ngay tatagal kenn ngir wàññi kenn parce que saa bu nit tooñee ñu duma ko nga ni kii kii kii duma yaa ko war a duma te fàtte ni war nga càmbar kële lan la def ak lan moo causé li tax mu tooñ ba lii dal ci kawam da ngay juum il faut toujours être équilibré et équidistant ci wàll yu baree bari malheureusement certaines personnes dañuy jël position ba pare taxaw ci posture boo xamante ni si li ñuy adopté mooy koo xamante ni amoo benn taxawaay amoo par parparloo yaanaamaar nag bi ñu leen di xam ci jamono 2010 2011 2012 dañu génn taxaw opposé wu contre le régime du président wadd parce que dañ doon wax non au troisième mandat ñu génn di ko xeex mm. ñu jàpp ne saa bu ñuy salfaañi li nga xam ni moom la bokk